Bye. Uh, قوة على التحقيق سقر لنا الأرواح والأسماء وسخر الخضراء والغبراء والأبرار والأنداب فقه قلوب فتيتي في الدين واهد بنا بالمصطفى قروني يدخل في الإسلام والطريقة أهل البصير الحقة على الحقيقة وتهتدي في ظاهر وباطن مجامع الأحياء والمواتن صدق بعبدك فراسة الإمام بحرف صاد وبصح الكرام السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi nuyu mboolem jullit bu fi toog di nuyu mboolem dëkkandoor di nuyu waa koñ bi ak mboolem njiit bu fi nekk di wax ne jotaay sant yàlla la muy jotaay boo xam ne ay ndaw yu jotagut am bàkkaar ñuy ñëw wax ci wax bi gën ci waxi buuri mbindéef yépp wax ko muy alquranul karim ñuy ndokkeel képp koo xam ne am nga ci mbokk moo xam ci taalibe yi la wala ustaas bi nga bokkal waaye di ndokkeelaat beneen yoon ñi nga xam ne biñ amee doom xam ne ne seen doom yi mënuñoo jàng lu raw alquran ñu indi leen ñu jàng ci daara fii ñooñu ñu ngi leen di ndokkeel seen fay lu rëy la lu bari la kiy def ci conférence bi ci kanam dina wax ci loolu di wax ne beneen sant yàlla it mooy liñ koy amal ci weer bi ak ci fan yim amee di wax ne xale yi nga xam ne ñoo fi war a tarisi am na ci ñoo xam ne tareeguñ alxuraan waaye dineen tari ngir mbooloo mi seede njàng mi ñuy jàng nit ku matul nag def lu mat dina ko jafe waaye su njàng mi baaxee ngeen ñaanal xale yi ñaanal ustaas bi mu yàgg fi lool di defal yàlla lu baax ci xale yi te mu baax rekk leen ci yaakaar ñu ngi dalal mbokk yi nga xam ne teew neen fi mbokk yu ustaas bokkal deret ak ñim bokkal sëriñam bu tedd boobu boobule nga xam ne mbooleem àndaar bi ñuy nattee wàllu yàlla suñ ko fi nattee mu fees muy mawlaana alhaji cheikh omar Touré radiallahu anhu moom mi nga xam ne jotaay bii lenn la ci lim liggéeyal yàlla ñu ngi nuyu mbokk yooyu noonu gis neen fi ay jëmm yuñ xam ak ñuñ xamut kuy lim nag du juum daf dul mëtal ñàkk bañ a mëtal gi tax na duñ tudd kenn waaye nuyu niin ñëpp kenn ku si nekk ñu ngi lay wàccee wàccuwaay bi nga am ci yàlla kenn ku si nekk ñu ngi lay nuyoo ni nga jegee ustaas ci xolam ni nga jege taalibe yi ndax bis bi tey ñaari daraja la bii ustaas bi la bii taalibe yi la eh, di ndokkeel mbokk yi ko fekkee di wax ne programme bi ni muy demee mooy xale yi tareegul ñu tari alquran dinañu jàng suñ paree ñi nga xam ne tari neen dinañ jàng xale yi dinañ fi jàng hadis ak woy yi nga xam ne yàlla moo ko barkeelee ustaas mu sadd bayti ci xam-xamam bu tuuti bi te ñuy ñaan yàlla mu baril ko. بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنفسهم تنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى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 إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن 阳光。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 mine. ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بقى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 كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب والنجم إذا هوى first يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء سجاجا من به حبا ونباتا وجنات الألفاظ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 والمحصنات من النساء لا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراديتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الملك يومئذ لله يحكم يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين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 خطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقذه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ۖ أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية ويذرؤون بالأسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إني أراك إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما قال لا أحب الآفلين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi gannaaw buñ sante yàlla junni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp muy góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di nuyu ñi nga xam ne ay surafa lañ waaye ñi nga ñi ngi nuyu tamit ñi nga xam ne ay suama u waaye ñi ngi nuyu ñi nga xam ne tamit ay suada u lañ ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam muy nuyoob yaa nga xam ne moom la ñuy yàlla boole muy baat yu teey te sell bàyyi ko ci ku doy di jëm ci ñu sell muy asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyoo boobu nag dañ koy yëkkati teg ko ci loxol Seydi Ma Omar bi tey moom mi nga xam ne moo ñu takkee ba yàlla xéewalal ñu jotaay bii di ko sant di ko gërëm di ko wax ne jotaay mënta ñàkk amaan na moom jotaay bii bu ñu ci oowutoon ñun ñu uyu ci jotaay boo xam ne du neex yàlla kon loolu danañ ko ci sant gërëm ko ci gannaaw buñ ko nuyoo dafay mel ni ki kenn lañ nuyu waaye nuyu nañ ñaar ndax bu ñu nuyoo maa Omar Mbité ci famille Mbitéyeen waaye dafay jàll tamit ci famille Touré ndax foofa laa jëlee lii muy tey jii muy meññat ñun ñu si meññetu waaye bu ñu nuyoo ñaar ñooñu it dafay jàllaat ci yeneen ñaar yeneen ñaar ñi mooy nuyu nañ képp koo xam ne ni yaa ngi yëngatu ci tariixa tijaan waaye nuyu nañ képp koo xam ni tamit yaa ngi yëngatu ci diine lislaam kon nuyoo bi dafay daaj dajal mbooleem ko fi nekk muy ñeenti nit rek di góor ak jigéen di mag ak ndaw kon ñeenti ñooñu moom lañ fiy nuyu. di génnee nag ay kàddu sant ak ngërmaande kàddu sant ak ngërmaande nag mënta romb sant ak ngërmaande waaye ma Omar li ñu lay wax mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne inna allaha yarfa'u bi hadha alkitaabi aqwaman wa yada'u bihi al axirin yàlla de nee na yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yàlla dana yëkkati aw nit ci téere bii nii muy xale yi doon jàng waaye dana ci tëral tamit aw nit kon ñun dañuy sant yàlla bi nga xamee ne am nañ yaakaar ne yàlla yëkkati nañu si lu tax mooy Baay Ñas ci boppam nga xam ne mooy suñu sëriñ waxoon na ne kitaabun minallaahi jalilun jalaaluhu qadimun wa baaqin la sa zawala téere boobu nga xam ne ma nga bàyyeekoo ci yàlla mu kawe mi nga xam ne wàcce na ko ci yonent bi sa alayhi nga xam ne yonent boobu jàng na ko ci yalu waaye jàng na ko ci béral tey jii bu ñu yàlla xéewalalee ñu doon ay doom di doomi lislaam ñu amaat doom yar leen ci daara ñu ñëw di ko jàng comme ni ko Baye waxee ne yonent bi jàng na ko ci yalu ne yonent bi jàng na ko ci béral ñu am ay doom ñu teew ñu di ko jàng ci béral kon dañ ciy sant yàlla bu baax di wax ne li gone yi tàmbalee woon ci ay bayti baay rek loolu doyoon na jotaay bi pour ñu tasaare ko mu yëkkati ko. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp. di ci jiital suñu ñaari wayjur bu góor ak bu jigéen di nuyu ustaas yi ñu nekkal ci dara ji nga xam ne ñoo ñuy jàngal di nuyu suñ mbokku taalibe yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal nekk si daara di di jàng waaw Cheikh Tidiane bi yaa ma laaj ngëneel lu nekk ci koor ak ngëneel loo xamante ni moo nekk ci weer wi koor am na ngëneel yu bari yu ci nekk waaye bi ci gën a ràññeeku mooy bi yàlla wax ci xadiisul qudsi ne doomu aadama ji jaamu yàllam yépp moo ko moom ba mu des koor man maa ko moom maa koy fay loolu la waxoon ne kullu amal ibni aadama lahu illa sawmu fa innahu lii wa ana ajzi maanaam am na fay gu ci nekk gu jagoo goo xam ne nii yàlla koy méngal boppam loolu nag soo ko doon misaal tey ci mbiri àdduna mi ngi mel ni ab buur bu waxoon ne dafa bëgg ñu ko jëmbatal ay garab bëgg ñu ko gasal ay teen bëgg ñu ko xalal ay yoon santaane ay liggéey yu bari daa ne liggéey sàngam moom ku ko def ba pare ci man ngay ñëw maa lay fayal sama bopp kon liggéey boobu kon ku ne dana xam ne ñëpp ci moom lañ jëm ndax ku ne dana xam ne fay ga dana duuf kon loolu weeru koor koor moo ko jagoo muy ngëneel lu rëy weeru koor am na li mu jagoo moom weer wi nga xam ne ci weer wi rek la mën a yeneen weer yi amuñ ko weeru koor mi ngi jagoo saa yu agsee rek ni ibbu buntu aljanna yi tëj buntu safara yi tënk seytaane ba nga xamante ni def lu baax dafay yomb def lu bon dafay jafe loolu la waxoon ne ida jaa ramadaanu futtixat abwaabu aljannati wa xulliqat abwaabu nnaari wa suffidat shayatin mbokk yi Jëbel Sekk kenn ci ñu tuddee jotaay bi moom ak yaayam Seyda Asmaaw mooy nuyu mbooloo mi yépp ci nuyub lislaam di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mu ne beneen yoon nuyu na ñépp mu ngi sargal ñépp mu ngi sant ñépp mu ne ci nuyoo boobu mu ngi jiital yaayam biñ ko dippee muy saydatuna asmaaw Touré mu ne bés bii nag histoire moo nettali boppam mu ne bés boo xam ne tuddee neen ko jebeel tuddee ko yaayam asmaaw di sëriñam mu ne démbay tey ndax maam xadi soxna ak mamad xoja ñoo jëloon Malick Cissé mi bokk ak xoja ndey ak baay te jur ko jox ko Cheikh Omar Touré jur asmaaw yaayi Cheikh Omar di maam Fatou Thiaten di doomi nijaay ak doomi bàjjen ci maamam moom ñu boole leen benn bis ci bëccëgu weeru koor bisi alquran mu ne istuwaar nettali na boppam waaye oustaz Mamour bi tey def na liggéey bu am solo ci loolu mu ne mu ngi sargalaat xariti ndongo daaraam yi mu ne moom jebel sekk mii nga xam ne ñépp ñu ngi naan kan la anamu mu ne amut lu ëpp ndongo daaray Maaw Marbité yi mu ne mu ngi profitoo wale ci biir loolu di nuyu nijaay boppam di alxaaji malik Cissé mu ne mu ngi profito di nuyu di gërëm xaritam yi nga xam ne semaine bi yëpp ñu ngi koy liggéey dimanche ñu war a noppale ko ñu bàyyi loolu ànd ak moom fii gërëm na leen ñoom ñëpp jiital ci bekkaay ak ñeneen ñum tuddul. xarit nag laa fi yaakaar ne bëgg na yàlla mais koo xam ne yaakaar na ne àdduna moo ñu boole moo tax borom tur yi kenn gisul leen mu ne moom bisam bii ñu tuddee ko bu ko neexoon ngeen gis fi tur yu bari borom tur yu rëy. waaye moom ñim jàpp nañ ñooy xaritam te yàlla ñor na leen rek la fi indi kon yéen ñu ngi leen di ndokkeel. rawatina Cissé Cissé bi nga xamante ni euh, li ñu boole mbokk la mën a doon. mu ne rawatina kenn ci mbooloo moomu di siise nga xam ne li leen boole mbokk rek la mën a doon. Diouf Cissé. di ñëwaat rek ci maam Omar mu ne ginnaaw loolu yëpp mu ngi dellusiwaat ci oustaz maam Omar bi tey. fekkee mooy yow yaa indi ak mu ne su fekkee juumut Ahmed di doomi nijaayam moo waral xamante moom jabeel ak oustaz Mamour waaye du junjoon ma ci mu ne waaye nekkul ne li ko Ahmed junju mbiri oustaz rek moo ko ci dugal de parce tuddee ci amin ku àdduna ñaar rek la ciy wut mooy nit ñu ut ko luñ mën a wóolu àdduna bi bu dee àdduna ca biir àdduna mu ne bu dee àdduna ak la ca biir àdduna mooy yi laa mu ne moom daal banque yi la ci wóolu bu dee péncum yàlla bu dee péncum yàlla bi muy wër ñu mu ne suy wër ñu wóor comme ni banque yi bëri ci dëkk mu ne mu ne ni banque yi bëree ci dëkk bi kenn ku ne banque ba nga gëm rek wala nga yaakaar fa rek ngay dem mu ne moom nag dafa def oustaz compte spécial am ci pencum yàlla allahu akbar parce que pour firndeel ko man dama déglu audio wu Ahmed Cissé mu ne pour firndeel loolu dafa déglu audio wu Ahmed Cissé oustaz ne ko ndax euh, orange gañ togon gambi mu ne ndax orange biñ toogoon di ko lekk gàmbi ndax borom autorisé nañu ko. ma dégluwaat audio bi ne la dellu nga laaj ko ndax nañu la wala mu wax la jaar di fayante ko moom parce que lekk ak mu ne mu dégluwaat audio bi ne us déggu ustaas ne demal nga laaj borom orange bi ñu lekkoon orange am ndax may nañu ko suñu ko mayut ñu natt ñaata la ñu fay ko ndax àq baaxul. mu ne kooku mën nañu jàngat ne ragal yàlla la ma leeral foofu rek li mu wax mooy Maam Omar bi mu nekkee ci daara ja nekk taalibe comme ñëpp bi nañuy def rek dem lekk ceeb kër jàmbur wala nga romb meññeet mu wadd nga for ko Maam Omar dafa bokkoon ci xale taalibe yi demoon lekk benn orange ci kër jàmbur bi mu demee ba màgg ba toog fàttali ko loolu mu xatal ko ci guddeeg bëccëgam mu yónni ma man mii ne naa ko demal ci kër ga wax leen ne at sangam bis sangam moom maa Omar lekkoon na fa oran ndax baal nen ko ko suñ ko baaloon mu fay ko loolu la di wax mu ne bim dégloo maa Omar bi tey yónnee Ahmed si sa message boobu ci la jàngat ne ma Omar mii ku ragal yàlla la moom jëbeel mu ngi suufeel boppam mu ne comme moom dafa ñeme yàlla mu jëflante ku ragal yàlla ndax bu ko yàlla yërëmaale ko mu ne looloo tax nag ni nit ñi di dencee xaalis ci banque moom daal ngëneelam àllaaxiraam moom ci maamor la koy denc loolu moo waral nag yi looloo waral xari tabaski yi looloo waral koppar yu ndaw yi looloo waral toni ceeb yi ndekete moom jëbel mii looloo waral baas yi tey bi mu ngi bëgg yowmal xiyaam bu ñu fa yeggee ci nu mu suufalee boppam bakkaaram yu bari yi maamor bi tey su ko yàlla séddee séddaale ko mu ne moom bu demee yowmal qiyaam maamam yi ma doon tudd fii moom du laaj maamam yi du laaj Seydina Aliou Seck moom oustaz lay laaj. mu ne yaakaar googu mu am ci oustaz Maomar bi tey mii yàlla bu ko yàlla tas. mu ne te moom it lu tax mu am yaqiin ne yaakaar googu dara du ko tas. mu ne oustaz bi ñuy waajal gàmmu daaw. mu ne ko ustaas man Jabel Seck dama gént ñu ne ma yonent yàlla Muhammad mu ngi fi ah, ustaas mel ni ku waaru na ko ah Jabel loolu yéeme na di Jabel demaat ba mu yàgg euh, ñu jàpp première édition gàmmu daaw gi jotaay bi laay gis yonent yàlla moom mu nekk bëccëg ndarakaam mu ne moom jëbel géntam googu ci at moomu bim ñëwee ci jotaay bii nam génte woon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa noonu la gisee yonentu ci bëccëg ndar kàmb sekk àlli ñu ngi lay ziyaare mu ne ndax moom sax mi dem bay gént yonentu noonu ci suufeel boppam mu ne moom amul tollul foofu si yàlla ndax moom ragalut yàlla mu ne kon daal moom ci suufeem yaakaar gi mu joxoon Maam Omar la ko yàlla faye ba mu mun a gis yonentu yàlla Muhammad mu ne di nettaliwaat beneen ne saa yu amee soxlaam yu diis yooyu noonu bëcc ko Maam Omar mu ne saa yu demee rek mu sotti mu ñëw rek ndax Maam ndax xam nga moom saay-saay la <laughs> su ko defee dafay ñëw na ko ñaanaatal. loolu li si jublu di xool di natt maam Omar ngëmam. mu ne lim jublu ci loolu yëpp mooy ba tey mu ngi natt ki mu àndal mooy kan. dam dam dam ba jamono yi paase mu ne ko oustaz dama la ñaan bu fekkee sottiwul dana am problème. mu ne su demee ba mu yàgg rek mu nappaat oustaz rek na ko li ma leen daan ñaan loo de bu sottiwul ma am problème. mu ne su boobaa ustaas ci oyofam gi rek mu ne ko bu fajaree daal dinaa jël xale yi doon tëri fii alxuraan ñu ñaanal la yàlla. wane bi ñu ànd ànd bi la. mu ne loolu wane ne Ahmed Cissé bi mu boolee Mame Omar ak Jebel ñoom ñaar ñëpp seen ànd bi dañ ko teg ci yàlla tax. Jebel daal mu ne mu ngi yëkkatiwaat kàddu sant ak ngërmande di ko gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi xarit yi soppi yi am di jàmm yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu leen di nuyu nuyu bi ñu yàlla boole muy ñetti baat yoo xam ne nii doy na walis képp kenn ci ñun te kenn ci ñun doy luwut walis ko muy baatab jàmm di baatab yërmaande di baatab barke yal na yàlla wàccee ko ci mbooloo mi wàccee ko ci barab bi wàccee ko ci daara ji mu mel ni li ñu waroon a wax yépp xale yi daara yi wax nañ ko buy ci alquran wax nañ ko buy ci xam-xam wax nañ ko kon lu ñu def rek mooy toppaat ci seeni jeexit wax lenn ci ngëneeli alquran gannaaw bu ndokki la jullit yëpp nag ci weeru tedd wii nga xam ne ci lañu ñu nekk muy weeru alquran weer wii di weeru koor mooy weeru alquran ndax ci weer wii la wàcc yàlla wàcce alquran ci weer wii moo jox weer wi teraanga ji mu am yépp kon alquran mooy téereb yàlla bi mbokk yi dañoo amul temps moo tax dañuy tënk suñuy kallima ndax dañoo ne ci weeru koor te diggéen tàkkusaan ak timis waxtu bu xat la te am nañu jógee ci yeneen palaas yu fasantikoo wara a dellu ci palaas yu fasantikoo te bu guddee rek mën leen a lor xabla kulli shay'in ñu wax ne dañuy waxtaan ci lenn ci ngëneeli alquran ndax alquran xéewal la goo xam ne buñ ko doon lim mënuñ koo dajal wa in taodu nicmatallahi laa tuhsuha alquran pour ñi xam dëgg-dëgg alquran il faut ñu taxaw xool lan mooy alquran fan la alquran jóge kan moo indi alquran fan lañ yóbbu alquran ci fan lañ ko yóbbu pour ñu xam dëgg-dëggi alquran mooy lan yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama bindal ko ñaar muy palaas ak jamono muy temps ak makaan amul dara lu nit di def lu dul ci ñaar yooyu la koy def benn ci barab walla ci jamono alquran wàcce ci jamono yi gën ci jamono yi muy jamono yonent bi sallallahu alayhi واتشي بلاس بجنتي بلاسي من أم القرى دي مكة المكرمة خنا لورك ديون القرآن غنيل فن القرآن جوجي يلا موكون نتليل بابام نينا تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين kon alquran ci yàlla la jóge doyoon na ko loolu ngëneel leetar bu jógee ci yàlla nag jëm ci jaami yàlla yi dama ne ëpp naa classé ci ay classeur war nañ ko ubbi war nañ ko jàng suñ ko mënta jàng war nañ ko jàngalu fii ci àddina rekk président Macky Sall la mu joxoon leetar rek du fanaan ci yow te xamoo la ca nekk ku mu ci ñun rekk du fanaan ci yow te xamoo la ca nekk leetar bii nag ci yàlla la jóge jëm ci ñun ñi xool ndax war nañoo xool la ca nekk xam ko bu ñu xamul ñu dem ku ñu ko xamal mu jóge ci yàlla yàlla jaarale ko ci malaaka mi mu gën a fonk muy jibril alayhi salaam yàlla bëri malaaka israfil fa asrail mikail ñépp wa ma yaalamu junuuda rabbika illa huwa kenn xamut lëli yàlla yi lu dul moom mboolem malaaka yi yàlla tànn ci jibril bi nga xam ne moom la wax ne qul nazalahu ruuxul quds jibril mooy ruuxu gu sell gi yàlla tànn ko jox ko alquran mu indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moo gën ci mbooleem mbindeef yi jibril indi alquran ñi xoolaat fan la jibril indil yonent bi alquran pour rek nga xam ne ne li alquran deug deug deug yàlla waxat ne nazalahu ala khalbika yonentu jemula yonentu khalla yonentu ruhula yonentu ay cieur la am way xolal yàlla yoy yeb mun nazalahu ala khalbika ci xolop yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ wàccee alquran mu jëm fan jëm ci xeet yi gën ci xeet yi xeet wi gën ci xeet wi muy xeeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran a ngoog téere bi gën ci téere yi jóge ci borom bi subhanahu wa taala jaar ci malaaka mi gën ci malaaka yi muy jibril ñëw ci xolab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne xol mooy palaasu yàlla ci jaam bi danañ ci ñëw tuuti ci kanam ndax ca xadis ba yonent bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam am na ci doomu aadama lumb woo xam ne su baaxee lépp baax am na ci doomu aadama lu mu woo xam ne su yàqoo lépp yàqu ñu ne ko lan la mu ne allah wahiya alqalbu yonentu loolu la wax inna fi ljasadi mudaqatun isaa salaha salaha aljasadu kullu wa isaa fasada fasada aljasadu kullu ñu laaj ko ko mu ne allah wahiya alqalbu xol boobu moo yàlla mbooleem cëri yonent doy lu ci benn lu xol ba ndax mooy palaasu yàlla ci moom kon alxuraan a ngi noonu doyoon na ko rek ngeneel yooyu nga xam ne moom la làmboo njëkk muy ñëw ci ñun mu mel ni dañu ne nañuy wax lenn ci ngeneeli alxuraan ñay tàllal seen loxo laaj yàlla yàlla nee na koo alquran nga soxla ho tuddu yàlla nga soxla ho man yàlla ma jox la luma joxut joxut kat yi lolou mbok yi nexna deug waye nak lan moy soxla ho alquran fofu mo am taxaw setlu lan moy soxla ho tuddu yàlla مكي سخلوا القرآن ما إلا ينتو وخون صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كي جنتين موي كي جانغ القرآن بن نوبي ديكو جانغالي نو نيو جنتيين سخلوا القرآن موي nga sonnu ci jang ko sonnu ci jangale sonn ci jàngalekati alquran yi comme ni ñu ko waxee léegi ku mel ni sang yu baax yi ñu tuddee jotaay bi tey muy Jabel Cissé Jabel Seck ak suñu yaay suñu sëriñ asmaaw loolu mooy soxlawoo alquran dimbale ñooñ alquran dimbale ñooñ daara dimbale ndongo daara yi képp ku nekk ci loolu soxla soxlawoo nga alquran yàlla neena kep ku ne ci lolu man yàlla ma jox ko luma joxut laaj kat yi mu melni ñaar ño am ñaari tuddu yàlla yi muy baatab rahman ak baatab rahim nga xamne ne ci ñëw ci bit faradul kitab fatiha amna na juróomi tur yàlla amna allah allahu rabbu امنا الرحمن امنا الرحيم امنا مالك ممن يالله دافني قلحتك يا ابن ادم فانا اله يا دوما ادم يالله مالا بند من ماي سبورم ثم ربيتك فانا ربك ما يرلمن يالله مايسا مايكلي يار, لمن يالا nooy sa borom mooy ni kon fala budda yar munta ñàkk lu mel ni lii nga xam ne moom la la sëñ bi def ci xale yii nii darañ ci ñëw mu ne ko su ma xasayta nii fa xafartu ana rahmaanu man yàlla ma bind la yar la nga tooñ mooy ma man yàlla ma jéggal la maa jéggalaakoon bi bi nga jógee ci maqaama boobu su ma tubta fa ana rahimu nga tuub man yàlla may rahim mbokk yi rahman ak rahim arrahman isaa suila utiya wa rahim isaa lam yusal yuxdab lu fa lañ utee kii su ñaane yàlla yàlla jox ko kii nag bu ñaanut yàlla mer boo nekkee ci maqaamab rahmaan loo ñaan yàlla yàlla jox la ko waxtu woo xuusee ba nekk ci maqaama maqaama rahim yàlla soo ko ñaanul sax dalay mere kon kooku xam nga ne kon dana la jox lu mu nga xam ne dana la jox ci lu dut laaj yàlla dana jox jaam bi ci lu dut laaj إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب kon alquran a ngi noonu ak nga xam ne moo soxlawoo alquran yàlla ne képp ko koo xam ne alquran mooy soxlaam tudd yàlla mooy soxlaam ma jox ko lu ma joxul laajkat yi boroom xam-xam yi ne tudd yàlla ñaari xaaj la yàlla wax na alxuraan ñaari tudd yàlla bii mu ne tudd leen yàlla tudd gu bari wa zakirina wa zakirati kasiran waskuru laha sikran kasiran tudd leen yàlla tudd gu bari tudd yàlla gu bari mooy lan tudd yàlla ci sa làmmiñ ba mujj àgg ci sa xol ba mujj àgg ci say cër yépp lu tudd yàlla yaa ngi ci wa zakirina la kasiran wa zakiraat tudd yàlla lu néew alquran indi na ko yurauna annaasa wala yaskuruna allaha illa xalilan mooy naafiq yi kon ñaar ñii ñoo fi nekk jullit bi ak naafeq bi naafeq bi tudd yàlla yàlla wax na ko dafay ngistal tuddut yàlla lu dut lu néew ki gëm yàlla dafay tudd yàlla ci làmmiñam mu mujj àgg ci xolam mujj àgg ci ay cëram ba jëmam lekk lépp nekk di yàlla tudd yàlla googu nag lañu soxla mbokk yi su ko defee alxuraan lenn ci ngëneelam mu ngi noonu waxaat na ci nga ne li alquran ne wa fadlu kalaamillaahi ala saairi alkalaami ka fadlillaahi ala saairi xalqihi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ngëneel alquran waxi yàlla ngëneelam nu mel ci mbooleem wax yi mi ngi mel ni ni yàlla ëppee ngëneel mende yi kon lolo kep ko xamne yang koy sonne wala nga jël sa dom duggal ci xamal ne yaangi yotu yootu ngeneen loo xam ne xamoo nu mu toll ba tey yi ci ngeneen alquran yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam iqra alquran fa innahu yati yawm alqiyamati shafian li ahlihi mbokk yi alquran téereb yàlla alquran yonent bi nee na jàng leen alquran bés penc dana ñëw alquran du ramb lu dut ñoñam nañ alquran ñooy ñan mooy ahlullaahi ahlul qurani hum ahlullaahi wax nañ ne xale bi jàng alquran yàlla ci mbaaxam dana jéggal ci wàllu yaayam juróom-ñaar fukk jéggal ci wàllu baayam juróom-ñaar fukk xanaa loolu rekk doyoon na nga jël sa doom yóbbu daara ja doy na ngëneel rekk xale bi ñu jéggal juróom-ñaar fukk ci wàllu yaayam jéggal juróom-ñaar fukk ci wàllu baayam ñu waroon a dem safara loolu rek dayoon na ngëneel ci alquran mbokk yi mu mel ni buñ ne alquran ne yar buñ ne alquran ne daara buñ ne alquran ne sëriñu daara ndax mooy ñi ŋànk alquran ñi xool nag yarekat bu mag bi yaraatekat bi gën a mag muy yàlla ñi xool ki mu yar yonent bi gën a mag ci yënant yi muy yonent bi sallallahu alayhi wax naa la daara jàngale alquran ak ci yar xale bi mu ngi ci defar jikkoom mu ngi ci yooyu la daara boole duwul rekk jàng alxuraan xale yi ne fii doon tëri yéen waajur yi ndongo yi toujours dama naan nañu wàññi parents d'élèves yi baat boobu nañ ko soppi nañuy wax waajuru ndongo yi loolu lañ moom ku ci sa doom nekkoon sa kër ñëw fii at nga ñëw gis ko fii dinga xam ne am na lu soppeeku ci moom ci jikkoom ci yaram ci mag xaalam ci waxam ci jëfam kon loolu du wut rek ñëw jàng alquran dañ lay yar defar sa jikko danañ ci ñëw mbokk yi nañu xool yaraatekat bu mag bi yàlla yonentu moo wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yonentu nee na yarkat bu mag bi di yàlla moo ma yar te moo rafetal sama yariñ mu nekk dars mbokk yi kon yar am na waaye yar bu rafetit am na soo bëggee yar nag ak yar bu rafet demal ci ku am ku demal ci ku yaru kuñ yarit yar bu rafet ku mel ni Cheikh Ma Omar bi bi nga xam ne suñu rakk la suñu xarit la suñu lépp la yonentu moo ne ta add addabani fa ahsana taadibi yàlla ma yar moo rafetal sama yarin xam nga mënoon naa wax ne adabani rabbi fa xasana te day wér waaye xoolal li mu utilisé afala tafdil fa ahsana gis nga yàlla bëgg na lu rafet lool waaye nag lu gën a rafet la gën a bëgg te boo jàngi alquran dañ ko fekk ci biir alquran lu baree baree bare alaysa allahu bi ahsani bi ahsani taqwimin danga fekk mu ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila danga fekk mu ne wa isaa huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha kon ma ne yar am na waaye yar bu rafet am na waaye yar bu gën rafetit am na daara jii nag palaasu jàng alxuraan la palaasu yar la waye palaasu yar bi gëna rafet ci yar yi te moy yarab l'islam motax ngeen ngeen gis ñi bind ci bulu ci xale yi darul qur'an madinatul fas li taxfiisil quraani wa tarbiyati al islaami wa tarbiyati al islaami kon yenentu yàllaa ko yar yàlla rafetal yaram yónni ko ci mbooleem mbindeef yi jox ko alquran ji nga xam ne moo ñu dajee fii tey mbokk yi maa ngi bëgg ñëw ci jikko xoolal yàlla bi mu yaree yonent def ci moom lam def ci moom jox ko alquran def ko muy xaatimul anbiyaa'i wa imaamil mursalina def ko muy mbindeef mi gën ci mbindeef yi وجه أخرى أنت موم منك يرمان نهال خير بي مولم قيت ترانجي أكنيل يلا جهنكو واي موم بين الدبلوم لا جه بين الدبلوم لا جه لا جه ينت صلى الله عليه وسلم مولان وإنك لا على خلق عظيم منا نفع نك نكو ياي سنجاب ينتي يا يرمان مهل مولا مول نيهل مولا بندي في يا نيتال يوننتي واي خولا يوننتي لم تي غنيل لم ام تي اي خرباخ يالا نكو وانك لا على خلق عظيم يو دا سديك رافتنا يو دال ديكو جوب كوي nga يا mbokki yar amna yar bu rafet am na yar bu gën rafet am na waaye fexe ba def ci nit ki jikko ju kowe comme li yàlla def ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam loolu am solo la te loolu ci la sëriñ bi nekk ak xale yi nga xam ne ñoo ne ci ronam ak mbooleem ñi ànd ak moom ci liggéey bu réy bi ñuy taxawal yàlla ne yow yonentu yaay borom jikko ju kowe ja gis nga jikko olof mu ne jikko ñu ne déedéet jikko la da koy ji di suuxat muy mag ak moom ba mel ni su meññee jëriñ dañu wax ne jikko mooy matière première lépp lu ñuy liggéey am na matière première bu lu ñuy lekk ak bu lu ñuy jëfandiko yépp dafa am matière première ñu ne jikko ci doomu adama mooy matière première am su baaxee lépp baax bu baaxut dara du baax innama umumu axlaaqu ma baqiyat fa inhum sahabat axlaaquhum sahabu comme ngeen koy déggee nit ki bu fexee ba jikkoom sell mooy xolom baax ñi defar xolom ba nga xam ne alxuraan mën na koo dékku tudd yàlla mën na koo dékku ñu ne am na numéro un kon ñu ne jikko mooy numéro un ci doomu aadama waxtu woo xamee ne góor góorlu na ba am alquran comme xale yii ñi monteel ko benn sero mu am diis su góor góorloo ba teg ca xam-xam ni ki xale yii ñi monté ko beneen sero mu am cent mu góor góorlu ba am wilaaya ñi monté beneen zéro mu am miil mën na góor góorgóorlu ba am barke ñi mënta beneen sero muy dix mille mën na góor góorgóorlu ba am beneen xéewal muy alal ñi monté beneen sero muy cent mille mbooleem xeeti teraanga yi ci kaw suuf bu góor góorloo ci itteem mën na koo am muy lim boo xam ne kenn xamul nu toll pour nga xam nag li jikko présenté ci dama adama kaay nga xool li mu am ni mu bëree am na xam-xam mu am dix am na alquran am na cent am na wilaya am na mille am na wërsëg am na cent mille am na alal am na dix mille demeel ba ci lu amul dayo loolu mooy nit ak jikko mbokk yi waxtu woo xamee ne فخنا بجيكم يقو موي بانيرتال امب نيت كوكو اماتول دارا لب سيرولا لب اي سيرولا امب رك ما بريزانتي سيرو ييب مو نيك غراد بو فور تي موم وقت هو واتي سيرو با دوما ادم اي سيرو كيسه فا ديس دارا نيكتو فا كون بو ني تباخ دارا دي تباخ fu ñu jàngee alquran pour yar xale yi jàngee leen alquran duhut ludut defar seen jikko bañ mën a nekk ci penc mi te duñ ko yàq yàquk penc mi yépp mooy ñàkk defar jikko yi ñàkk defar euh, jëmm yi naka noonu ñàkk yar xale yi ci alquran القرآن نين سهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعد الذي عملوا ولعلهم يرجعون كون دكتي جف جفي أدن أم يب سجني القرآن لا جف جفي أدن أم يب تجيرجي تبو سيربي دندو بجفبي خالص مانكي فيبر يي جافي جافي ييب نك نياك ديلو تي القران لا جافي جافي سي جيج جي جن اماتول نابو كي دوخاتول ليب نياك ديلو تي القران لا تي يالا سي ما خام نك داف ن لي نزيقهم بعد الذي عملوا القران بوكي تيري بو داي وار يالا بوم نه jaww ji waxu sax yàqu na daf ne yàq feeñ na ca bu yàqu woon kenn du fi neexati mu ne na ko noonu ni feeñee ci jéeri ji la feeñee ci jaww ji na la feeñee kon ci géej gi ànd ak loolu yépp yàlla ne ma mosal leen ci lenn li nga xam ne jëf ngeen ko ndax ngeen dellu ci alquran ak sunna su ne xoon ma fay leen ko kenn du ko attan ma mosal leen la wax te boo jàngi alxuraan di nga fekk ne yàlla lépp lu muy teg jaam bi daf koy mosal waaye fayee ko xantiwut ak moom nga jàng ci alxuraan yàlla di wax ne sàcc bu jigéen bu góor ak sàcc bu jigéen wasaariqu wasaariqatu faqtoo aydiyahuma bu ko neexoon kay mu ne ku sàcc ku góor wala sàcc bu jigéen dagg rey leen ko sax bu ko neexee waaye déedéet dafa ne dagg leen benn loxoom bu sàccaatee nga dagg beneen tànkam bu sàccaatee nga dagg beneen loxoom bu sàccaatee nga dagg beneen tànkam bu sàccaatee bu góor gi àggaan ci loolu radiallahu anhu moolaana Cheikh Omar danaan xanaa gémminam la koy jëlee mu ne bu sa bu daggee ñaar loxoom dagg ñaar tànkam kon bu koy jalaat gémmin lay sàccee lislaam dina taxfiif la yàlla fayantuhut ak jaam bi daf leen ne mosal ci lenn li ñuy def ci bàkkaar bu ko neexoon mu ne bu sàccee rey leen ko deful loolu nga xool ci sàcc alquran dafa nekk téere bu doy waar bi mu xamee ne sàcc góor moo ci ëpp doole jigéen dafa njëkke góor wasaariqu wasaariqatu bi ñu demee ci bakkaarab njaalo mu xam ne jigéen moo ci ëpp doole góor daf ne azaniyatu wa zani bu ko neexoon mu ne rey leen leen waaye ray ga sax yombul daf ne azani wa zaniyatu azaniyatu kon wa fajlidu len len leen téeméeri yar bu nekkee ku sangewu ku sangeewut mooy koo xam ne musul jaar ci bu mag sëy bu dee ku sangewu mu neen rey leen ko waaye xoolal ray ga ñeenti seede yu mandu jóge ci gox yi fasantikoo kenn du wax sa morom ñoo koy seede saxal rey googu noonu bu ñetti ñëw bu ñetti na gis nañ ko kenn ki na man de leeruma lislaam du rey dañu ñett ña saxal daf leen ni caw ay yar kon yàlla faye fayantuwut ak njul daf ñuy mosal ci lenn li ñuy def ci bàkkaar xoolal sàngara bi yàlla waxee ne yaa ayyuha allazina amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara bu leen jege sàngara bu leen jege julli fekk yéen a ngi mandi bu ko neexoon kay mu ne bu leen jegee bu leen naan sàngara di julli rek wala waxtu bu ngeen naan sàngara bu leen julli waxtu bu ngeen mandee bu leen jege julli ndax la ca xewoon mu waxaat ne inamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijsun min amali seytaani fajtanibu وخان إنما يرد سيطان أن يوقع بينكم عداوة البحر في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون نين يوقي تي دفر جيكو تموتا خجوك أستاذ مين خان نموتا نداجي في نفهم نعار جامي الله كي جامع كتب يالله الله بجبريل يمو تي موم kii nekk mooy katab yàlla ba ab yonentu génne ko dëkk xoolal ñaari jaam yàlla yi nga xam ne yàlla nee na soo matalee sama kóllëre ma matal sa kóllëre boo ma santee ma dolli la kii jaamam yàlla la jaamu yàlla ba jibril na yow yàlla sa jaam diw sàngam dama ko bëgg siyaare ji yàlla ne ko ci sartaab demal ci lawhil mahfuus nga xool turam mu dem lawhil mahfuus fekk fa turam ñu ngi ko bind minal ashqiyaa yi mu ngi bokk ci ñi texaat yi te waa ji dafa jaamu yàlla ba jibril ñee ko ne yàlla dama koy gane mu dikkal jaamam yàlla bi nag yow yàlla sama borom moom mooy ebal ci yow waaye li ma jaaxal mooy ma dama laa sopp ba ñëw seet la من ما قال تلا في المفوز فكني بند الله من الأشقياء تني تخدع بقية دلو جنب لهم وح من الحمد لله من سنتنا يلا لو لم أكن أهلا لذلك لما فعل بي ربي من بنا كون هلا هم لولو كون يلا دو بدي فلوس من لولا هلا كون ما سنت يلا yàlla ne jibril jibril delu kon ci boromam mu tekki lan ne alhamdulillahi ala sidati war raxaa i ngi sant yàlla ci yombu yombu yi ak jafe-jafe yépp maa ngi sant yàlla jibril delu ci boromam yàlla ne ko delul nga xol ci lawhid mahfuus mu delu xol fa wajada ismahu qad tahawala min al ashqiya ila suadaai mu fekk ñi soppi turam ci ñi taxadi xadi ci ñi taxé lu ko may alhamdulillah yàlla moo ne la in zakartum la in shakartum la azidanakum ba mu sante yàlla yàlla daf ko dolli far turam ci texe ñi texaade ñi yóbbu ko ci ñi texe xoolal jaam bi abdul asin la mooy katu yàlla la mooy yàlla ba yàlla diggante yàlla Moussa ne ko génnee ko ci dëkk bi yóbbu ko beneen dëkk mu yóbbu ko fa mu continuer mu ne ko génnee ko ci dëkk bi yóbbu ko ci àll ba ci benn doj mu dem ba ci xunt bi dee dikkal ko mu dellu ci yàlla gis nga yàlla waxtu woo ko bàyyee xel mu bàyyi la xel dee ñëwal na ko te musul def lu baax ci dundam mu ne yow yàlla fii ma nekk nii de bu fi sama yaay taxawoon dana ma dimbale dana ma jooy yow yàlla fii ma taxaw bu fi sama jabar nekkoon dina ma jooy yow yàlla fii ma taxaw fi sama njaboot nekkoon dana ma jooy yow yàlla fii ma taxaw fi sama baay nekkoon dana ma sang mu am ñeenti jàmbat yim jàmbat yàlla mu teg ci ne yow yàlla yàlla bul ma ma dagg ci sa yërmaande comme ni ma daggee ci sama ñoñ yow yàlla yàlla bul ma ragalloo sa safara xanaa kon tuub na dellu ci yàlla ba mu bàyyi xel yàlla yàlla bàyyi na ko xel ñu ne yàlla hebal ay xawraa ci melaw doomam yow yàlla yàlla ebal benn xawraa ci melow yaayam hebal keneen ci melow soxnaam hebal keneen ci melowam ay doomam hebal keneen ci melow baayam mu gis leen xolam dal mu ñaan ñaan gu mag gi yàlla yàlla bul ma dagg ci sa yërmande comme ni nga ni ma daggee ci sama ñoñ ba mu ñaane yàlla loolu yàlla nangu ñaanam ne yonent yàlla Moussa demal ca doj wa sama wenn waliyu yàlla mu nga fa Moussa ñëw fekk jaam bu nga xam ne moom xam na ko xamoon na ko démb yàlla na ko demal ci sama waliyu yàlla boobu noonu mu ñëw gis ko xàmmee ko laaj ko ne ko ci maanaa bi ma xufirta lakk lu tax ñu jéggal la mu ne ko dama ñaan yàlla bu ma dagg mukk ci yërmaandeem naka noonu bu ma ni ma daggee ci samay mbokk yàlla nangu sama ñaan loolu la ma jéggalee kon ñaari jaam nga nii ku ci nekk sant yàlla dellu ci yàlla moo tax yàlla jéggale say bàkkaar fi may mooy loo xam ne nii ngeen baal ma tuuti rek soxal na daara ji soxal na yaayi daara yi soxal na taalibi bi waaye soxal na itimin jàngalekat bi Abdul Xaadir Alkaylaani radiallahu anhu comme fi xale yi tollu nii rek tollu ci jàng mu jóg di sàkku ji xam-xam yaayam jox ko yóbbal mu toll ci ñeent fukki diinaar darsu la kon ku am xale buy jàng bàyyi xel ci ñeent fukki diinaar yooyu ci sa doom waxtu bu nekk mu jóg di dem yaayam na ko sama doom kaay ma denk la ñaari baat na nga taxoo dëgg ak kóllëre alayka bi sidqi moo tax moom ba muy netti def ne baneetu amri ala sidqi sama mbir yëpp maa ngi ko tëg maa ngi tëgg ci dëggu ak kóllëre ñu ne mu dem ba ci yoon dajeeg ay addu kalpe ay lusuus ñu ngi ànd ak seen kilifa gu mat kilifa ci la ñuy def apprenti yi taxaw ci kaw yoon wi ku ñëw ñi palpe la jël la nga am agsi ci moom ñii denc lañ am ñii nëbbu ñii suñ làq ba gisuñ ko ñu agsi ci moom na ko loo yor mu ne ñeent ñeent fukki diinaar waa ji ne ko xanaa yor nag ñuy loo yor mu ne ñeent fukki diinaar mu yaakaar daf caaxaane mboole ko beneen seen beneen mag kooku laaj ko loo yor mu ne ko ñeent fukki diinaar mu foog ne daf koy caaxaane yóbbu ko ci seen kilifa gu mag gi mu àgg mu enquête ko loo yor mu ne ko ñeent fukki diinaar mu ne ko yow loola xiir ngay wax dëgg gi mu ne ko dama kóolurante ak sama yaay ci ne naa dëggu naa matal kóllëre te bëgguma xuruj mukk sama kóllëre ante ak sama wajur wu jigéen loolu moo tax ma feeñal lii ma yor waa ji ne yow yaay matar sa kóllëre ak sa yaay xaska ne man lu tax duma matal sama kóllëre ak sama borom daal dina ko damay tuub ci yow matal sama kóllëre ak sama borom mu tuub ci moom bàyyi lépp lu mu doon def ñi àndoon ak moom ne ko ah yow kat yaa nekkoon suñ kilifa ci ñaawteef bii nga doon ñu doon def tey ci tey yaay doon suñ kilifa ci tuub gii ñoom ñëpp tuub ànd ak moom xanaa kon taalibe bi mi ngi jàngi àggu ci kër sëriñam sax waaye gaa commencé na am ay taalibe li ko ko may dëggu matal kóllëre mu nekk darsu ci xale yi jàng waajuri ndongo yi ñun waajuri ndongo yi nañu bàyyi xel ci la yaayi Abdou Khadir def ci doomam ba muy dem jël ñeent fukki dinaar jox ko yóbbal pour mu nga naa yokk taalibe bi dafay soxla toujours yóbbal boo xam ne daf koy jëriñoo nañ ci bàyyi xel naka noonu darsu la ci sëriñ bi na teg daara ji ci dëggu ak sàmm kóllëre darsu la ci jigéen ñi ne ci kër yi ci lycée ci kër yi ci daara yi nañu bàyyi xel ndongo yi ci dëggu mat ak kóllëre <coughs> ah, mbokk yi fi ma tëjee commencé woon fa laay tëjee mooy ne waxtu wi dafa xat dañoo tënk dars bi ci lenn ci loo xam ne bu ñu ko yóbbee rek jëriñoo ko di gërëm nag mboolem ñu fi teew di ndokkeel suñu sëriñ yi nga xam ne ñoo taaral jotaay bi moo war na jiitu dama ne comme dafa xat xaaral ma mujjee ko muy doomi Baye Samba Touré yi nga xam ne suñu lépp ñoom la ki leen ci ur tey jii di Hawa muy doomi sëriñ bi mu ngi fi teew ànd ak ay rakam ànd ak sati sëriñ bi njiite Babacar Diaw ak mboolem ay rakkam ñépp ñu ngi ci jotaay bi ñu ngi leen di gërëm di leen sagoo di leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla itimin borom jotaay bii di maa Omar di suñu rakk yal yàlla dëgëral ko yal yàlla sàmm ko sàmmal ko yal na yàlla wattu ko yal na yàlla aar ko di ñaanal ñi ngànk daara ji ba kenn xamul xamulu leen dara yal na yàlla dolli leen te yàlla bu leen yàlla wàññi mukk yal na yàlla saxal leen te saxalal leen yal na yàlla wattu leen yal na yàlla aar leen ñaanal képp ku fi teew muy góor muy jigéen mag di ndaw yal na yàlla jox la sa càkkutéef ci zahir ak ci baatin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di gërëm di leen sant comme ni ko mbokk yi waxee su waxtu wi guddoo nit mënuñ fee wax mukk lu mel ni kàddu yi nga xam ne jib na fi dippi bi xale yi di joxe addis ñu fekkee loolu ba ni conférencier bi pare lu waxtu wi di tënku tënku tabaarakallahu amut ruq buñ soxla rek te laalut ko te lim ci laal tabaarakallah lépp njariñ la ñu ngi gërëm di sant bu baax jërëjëf Cissé ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla saxal kolere gi ci sa diggante ak maam Amar sa diggante ak mbokki jullit yëpp conférence bi jot na tabaarakallah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp nag di darju mbir mi rek comme niñ ko waxee euh, suñu mbokk jébal mi ngi doon bëgg a dem ma ñaan ko mu toog te même bu demee liñ bëgg a wax mën nañ ko wax waaye mu toog daf may gën a neex lool ndax mujj ak jataay mooy mooy mooy barke bi barkeb jataay mujj rawatina jataay boo xam ne yow lañ ko tuddee yal na yàlla yombal yoon yi ba dem gi du am benn tardement yomb na yàlla yal na yàlla def loolu yaa bi jëbal ñi ngi lay gërëm bu baax di la sant bu baax di gërëm képp koo xam ne jël na loxoom jël na yitteem def ko ci daara ji yàlla mi am fay yal na yàlla fayante ak yéen yàgg nañoo yëg sa yëngatu ci daara ji olof day wax ne geen ab golo gudd na waaye lu ca laal borom yëg ko daara ji yàgg nañoo yëg sa taxawaay sa yëngatu ci daara ji li nga wax lépp dégg nañ ko waaye wallahi la ñi ngi lay wax ne yaa ngi verser ci banque boo xam ne doo perte ba illaa mi diin te ñun day néew na lu ñuy yëkkati kàddu goo xam ne dañ koy teg ci xaal waaye ñi ngi warlu daara ji képp ku ci dugal sa loxo ak daara yi mel ni ñoom yaa ngi jaayanteeg yàlla jaayante goo xam ne wallahi doo réccu doo perte te lii ñu wax xam nañ fiñ ko teg kon ku yàlla naroo dimbale rekk yaay jël sa yitte dugal ko ci daara yi parce que tey ci kaw suuf mën nañoo wax ne gisuñ benn barab boo xam ne yàlla rusee na ko xeet wi rusee na ko jamono bu raw daara yi nga xam ne ñi ngi ci mokkale alquran di ci yar doom yi gisuma loolu kon képp ku pare pour jaayante ak ñoom jaayante ak ñoom yàlla nga jaayanteet te jaayante nga koo xam ne ku jaayante ak moom danga tonawu yàlla bu yàlla tas yaakaar yaa rabbi yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla na yàlla dëggal yaakaar yépp li tax ngay def li ngay def yàlla am na pay yàlla na yàlla fay la ba nga yëg ne ba àddina yépp yëg ne yàlla fay na la ak képp ku mel ni yow di yëngatu loolu ci daara ji walla di ko yëngatu ci daara jum man di doon parce que ñun daara yi rek lañu am moom la ñuy sagoo mooy suñu tiitar mooy suñu bureau mooy suñuy tool mooy suñu lépp kon ku yëngatu jëm ci loolu mënuñ lu may ñaanal la yàlla parce que amuñ luñ fayante ak yow waaye danañ la ñaanal yàlla te danañ sax ci ñaan googu maam Sëriñ Mbaye Niass daf daan wax ne suñuy ndimbal nañ leen di ñaanal yàlla dimbale leen suñuy ndimbal nañ leen di ñaanal yàlla dimbale leen kon boobu dar su jar na jàng ci asi gor du fàtte day am colère yal yàlla fayante yéen Cissé ñu ngi lay gërëmaat bu baax ci conférence bi yal na yàlla dëgëral taxawaay bi donga yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla barkeel yëngatu yi yal na yàlla barkeel njàng mi maam Omar nag duñ mën a def lu may danañ ko gërëm waaye jiital ñaan yàlla ci moom ak ñaanlu yàlla ci moom ndax taxawaay bi tabaarakallahu rafet na yitte ji kowe na liggéey bi rafet na sell na kon ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaan lu yàlla ci moom ndax li nekk ci ngëneel lii ak lott gi ci jaami yàlla yu lott ci kenn ku nekk ci sa doom mu taxawee lii ak ñi mel ni moom ci liggéey yu mel nii mënuñ lu may ñaanal leen yàlla yal na yàlla dimbale leen yal na yàlla wattu leen ci waay rek baatin yal na yàlla téyel leen boppam kon loolu la ñuy wax te wax ne maam Omar liñ wax ci moom yépp yàlla ku yaatu may la waaye lépp nag daf ko donn lépp daf ko donn di ko donnee ci ay wayjuram di ko donnee ci ay maam ci côté ndey ak baay ba nim ko donnee waatee ci sëriñam alaaji Cheikh Omar Touré radiyallahu anhu kon li nekk ci moom ak doxalinam lépp may seedeel mbooloo mi ne te maa leen koy seedeel waaye gënuma leen koo xam lépp ndoona la damay wax ne ku xamut baayam lu la réer ci baayam rekk gis ko ci moom lu la réer ci baayam rekk soo ko xoolee ci moom danga ko ci gis defi nag waxi nag jikkoog lépp nag ak bëgg njàng mi ak bëgg njub ak maandu gi ngeen wax léegi ci moom ci attaat di wax sax ne boroom oraas ji bu fekkee mayut ñu oraasam ji nañ ko ko fay loolu kuñ def ci yow mbaax baax na kooku rekk moo ko mën a tari kenn mënta gàll loo lii may wax dama ko xam ndax baayam moo ma yar te daanut yarantu ku ñàkk caaxaan la ku bari xam-xam la ba dañoo mujjoon tuddee ko dictionnaire loo ko bett bett baat bi lum luxa luxa boo ko ko waxee rek mu wax la ko waaw lu néew nga koy laaj mu dem génne mun jiit bi xool ko tontu la waaye loo ko bett bett soo ko laajee baat bi lu luxa luxa rek sëñ daara dana la tontu dégg jëmmi bés Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ànd na ak maam sëriñ Mbaye ñëw Koosi bi ko sëriñ Daara di nuyu bi ko Baye joxe loxo daf ne ana dëkk bi mbaa yéen ngi dem ci ron Mod Roqi mu di leen jàngal boroom dëkk Baye Amadou Roqi ne ko du kenn kuy dem ci moom di jàngi. waa Kossy Thiamène rek ñooy ñëw ci moom di jàng bàyyi na ngeen dend ak làmp bu mel ni sëriñ daara moo roqi te ñëwu leen jàng maam sëriñ Mbay mi ngi ànd ak moom ne ku xam la ku ko jege da xam lii kenn nettaliwuma ko ci sama kanam la nekkoon ku màndu alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax lii yëpp xol bu sedd la ak xol bu tooy ngi démbu parce que man samay mag ñoo ma yar te ci ëtt papaam lañ nekkoon mu amee suñ lépp moom ak rakkam Mouhamad bi tey gënoon siiw ci jimba moo tax ñii seen mbir du mën a tuuti ci man du nekk lu oyof ci man ndax def nañ ci man loo xam ne mënuma leen ko fay bay la yow mi diin kon damay ñaanal seeni njaboot yal na yàlla téye leen boppam yal na yàlla defal leen jàmm yal na yàlla jox leen mbooleem seeni càkkutéef bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 ثبت قلوبنا على الإيمان والتهدنا لعمل الإحسان وانصر إلينا وانصرنا دين أدي حقوقنا وأدي دينا وهب لنا صرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاس عنا كل من قد أحسن إلينا من رب الجزاء الأحسن بالمصطفى السفيع يوم المحصر خير الورى من قد حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما